plaisir partagé euh, Aïcha maa ngi kontaan ñëw tey ci 7TV. Mhm. ah di suñu kër ah. parce que dafa am maison de presse yoo xamante ne ni ñun ñëpp ñoo ko bokk. dëgg parce que da ngay gis ay self made men ou self made women euh, lu ci mel ni may mën a nduur taxawal lu toll nii. Mhm. nga bokk ci corporation bi da nga ciy fier. ñu nekk ay jàmbaar nag nee naa ku nekkul PDG. manoo xam PDG lu muy daj bu la 25 jotee yow ngay. waajal sa fayoor <laughs> di programmer sa xaalis moom fan yooyu nelawul nu mu lay fayee lay xalaat du nelaw mm-hmm. donc c'est très difficile surtout ci contexte bi ñu nekk léegi mm-hmm. xam naa du ñàkk ñu dugg ci ci waxtaan bi mais maa ngi koy nuyu bu baax a baax may mun a waaw di ko di ko gërëm ci participation ci réew mi mm-hmm. ak ci dëkk bi am na solo waaw parce que Aïcha nga may ma tuuti foofu parce que il faut sénégalais yi xam benn affaire ki lay wax ne jox ma pour ma jox la liggéey balaa nga koy jox pour mu jox la liggéey xoolal ku mu mës a jox liggéey. ñii fiy taxaw nii ñëpp di campagne naan bu ngeen ñu falee ñu utal ndaw ñi liggéey xool leen kan lañ mës a utal liggéey ba pare rien qu'une campagne électorale. Mm-hmm. budget bi dina ëpp 100 million su normalé entre la communication mobilisation tout ce qui est sécurité. Mm-hmm. animation propagande véhicule loolu lépp dafay mat 100 millions pour une campagne normale. Mm-hmm. nga boole ci caution wu 30 millions. ça fait 130. Maïmouna Ndour Faye ñi mën naa waat ne ba muy tijji sa TV démarré wul 100 millions tey ñaata nit a fay liggéey. tout à léegi sénégalais yi ñoom ñi leen di wax ne ñëw leen ñu jox leen liggéey lañ gën a wekk lañ gën a bëgg. lañuy gën a déglu que ñi nga xam ne ñu ngi ci réew mi taxawal dara doomu réew mi di ci xëy. maanaam mm. senegal rek laa gis maanaam ñoom may Maïmouna Ndour Faye ñoom Youssou Ndour ñoom Bougane Gueye tekkiwuñu dara ci réew mi ak li ñu fi def yépp jox ay ndaw ñu xëy ñi leen joxul tous seen xaalis ñoom ak seen i dooma ciy noos parewaat pour jëlaat suñu xaalis ñun l'argent du contribuable continuer di ci noos ñooñu lañ gën a gëm jox leen cër jox leen cër bàyyi ñu fi liggéey c'est domage très dommage y Sénégal que loolu loolu fii rek la possible Sénégal et c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage voilà